salaamaaleykum mbokk yéen naxa na yaakaar naa tey nag ah ñu ngi fii nag tey eh, ci Mbour dañoo jógee Dakar nag ñëw ci mbuur bu ñëwee Mbour nag dafa am kuñ seet sa yaakaar naa muy kan le marabout des marabouts le marabout des marabouts muy kan ah Karamba Karamba nag yaakaar naa buñ ko buñ ko waxee nag àdduna yëpp xam nañ kan mooy Karamba le maître de djinns Karamba tey nag mu nekkoon ci loo xam ne ñu jóge ci match boo xam ne métti woon na trop muy Sénégal euh, Égypte mu métti woon trop yaakaar naa Karamba commencé woon rek ci euh, Sénégal Égypte yàgg na euh, ñëw ci Sénégal yàgg na jàppale Sénégal yaakaar naa nag mu am lu mu waxoon ci avant match bi nag yaakaar naa yàlla dogal loolu yaakaar naa ci jëmmam jooju mu jóge jëmmam jooju muy Karamba tey nag ñu seet ci ko fii tey nar a waxtaane moom ci lu bari yaakaar naa avant match bi am na lu mu waxoon day yëngal caax yi day yëngal caax yi dugal benn bi lu métti met ne dugal benn bi te incha match bi metti mais day gagné incha allah li nga xam ne mooy Égypte. def na ko nag yaakaar naa aussi waxoon na aussi tam ñaata minute lay euh, dugal bi yaakaar naa la ma waxoon tam noonu la demee encore tey ñu seet si ko nar a ak moom ci match Sénégal bi nar a waxtaan ak moom ci Sénégal nar a waxtaan ak moom ci lu bëree bëri muy Karamba waaye nag leen jox rendez-vous nag dañoo jógee euh, fële kam ne nag mooy Gambie Gambia people nag ak kan Wally Ballago Seck le centre du peuple le soir du peuple mu def fa ñetti date macha allah ñëw wàcce foofu Gambia Gambia moj mook rumbux mu ñëw Sénégal nag encore seet ci li ñëw ci Lions yi Lions yi gagné yaakaar na ñu jox waa rendez-vous nag boo xam ne raxas la ñu tuddee ko raxas jógee Gambie war raxas fan la fële ca Vogue kañ la vendredi incha allah sargal Lions yi bége suñu li nga xam ne mooy suñu victoire ci lion yi macha allah tey nag kon nag dañ may topp bas rek ñu dugg ci biir waxtaan ak Karamba ci matt bi waxtaan ak Karamba ci lu bëri tey jërëjëf. tey nag gis nga macha allah depuis émission ba léegi appel yaa ngi daw fu nekk la ñu woote euh, ñii ngi woote Finlande ñii ngi woote Italie ñii woote États-Unis ñii woote Touba vraiment fans yi ci li nga xam ne mooy victoire bi rek yaakaar na euh, xamuñ fu ñu commencé émission bi tey parce que mbégte parce que yaakaar naa àdduna wërgal këpp ñëpp euh, waxal lu la neex Karamba tey parce que tey mbégte la loo sentir wax ko appel yaa ngi noonu jox ma jox ma bi parce que lay li ñu fi li ñu fi andi tey bi la lii moo muy euh, lii moo ñu fi andi yaakaar naa tey nag bu ñu lii andee tey fii ci Karamba këram ci mbuur dañoo war a yaatal lu bari tey parce que lii tey moo tënkoon Sénégalais yi lii tey moo tiitoon Sénégalais tey mais jëmm ji ko xam ne tey moo tax tey euh, ñu am victoire moo tax tey Sénégal euh, dem fi mu àgg tey jëmm ji toogal la muy Karamba le merci des jinne mu ngi nii yaakaar naa ma jox ko bal bi lii yaa ko moom Karamba teel tey nag ñu war a def émission bu ala dawme wax ci football wax ci équipe nationale wax ci sëriñ yi nga xam ne jàppale équipe nationale mais na jëmm ji nga xam ne tey li mu waxoon avant match yëpp du ma ne match bii nit ñi gagné démb mais match yi coupe d'Afrique bi lépp li mu waxoon dafa am muy borom trois buts mu ngi nii borom ñetti guy muy kan Karamba le Messi de Guinée kii mooy ki nga xam ne tey mooy jàppale Sénégal. dégg naa doguma ñu ne bii bi ci trois minutes la dugg de. waaw moom la foofu laay ñëw dinaa fi ñëw te trois minutes yaa ko waxoon yaa waxoon daal trois minutes ma yëngal caax yi. Karamba ñun dañ lay suivre at nay bëri li nga waxoon lépp boo waxoon am vaate dañ lay teg. am ah am vaat appel yaa ngi noonu. sant yàlla. yaa ngi jàmm. alhamdulilah. naka joonee. ñu ngi sant yàlla gërëm Serigne Fallou Mbacke. yàlla na ma waxoon def nga de. lan waxoon. yaa ne woon man da nga bii. man. waaw dugg na wala duggul. dugg na rek na naar bu ko téye. naar bu nar a bii bi. waaw. da nga da nga ko def lu ñaaw a ñaaw. <laughs> naan bu lang si mbaali waaw loolu nga ma waxoon de. le Messi le roi du ballon. le roi du ballon le roi du ballon Karamba mooy meilleur marabout l'équipe nationale coupe d'Afrique. waay dégg c'est moi le meilleur marabout coupe d'Afrique. kenn du yow kenn du yow. dégg nga ma la. meilleur marabout coupe d'Afrique su Sénégal nangoo moo am suñ ko bañee moo am ñu kontaan. moo am. waaye man dama kontaan ci yow la nga dama ko gis. daga ne ma bii bi dinaa ko dugal naar bu ko téye naan nangam tan fekk ko ci yi. billaahi. yaa yaa ko wax ne ma nañ dajee jam ñaajo. jam ñaajo laa ngay xaar. jam ñaajo nga may jam xaar bii bu duggee rek la woo ne la def nga ko. billaahi. nee naa yoruma lay fay. Mhm. yuruma lii bu ma fay waaye tamit leen ay problème kontaan naa ci yow. bilaay. réew mi ñu ñor bu ñu yoroon million jox la ko. merci sëñ Fallou. waa def nga def nga la nga waxoon qualifié nañ dafa fekk nga waxoon. bilaay. man gëm naa lu ma dem man gëm naa la. waa sëñ Fallou naa ci yow. mais yàlla moo ñuy jàppale rek xamoo fi kenn mënul dara ku yàlla dimbali moo fi nekk. dara fii yàlla dimbali moo fi nekk mais am na ñoo xam ne yàlla dimbali wu leen ñoom ñooy bëgg di dimbali seen bopp mooy yenn sëriñ yi xam nga tey ku yàlla dimbaliwul nga bëgg a dimbali sa bopp far force xam ne. Hmm. xam nga lan la Sénégal lay football. waaw yow nga taxaw ki loo jóg kenn ku dërëm. Hmm. danaa nga nekk ci réew mi juddoo ci réew mi yaroo ci réew mi màgg ci réew mi. Hmm. nga xam ne Sénégal bu gañee mooy jàmmi réew ah nga xam ne si tey jii équipe nationale buy football rek léegi ku meroon rek da ngay fàtte lépp. da ngay fàtte lépp. waaw pour mu gañ a bu dul yow sa jëmu sax di say doom wala say yarbaat wala say soppe. Mm-hmm. nga taxaw daal ne man dinaa dugalal ñi ay bii. Mm-hmm. bilaay li nga def li nga def moo rëy barki yàlla man damaa a ci yow daa arrêté naa sa numéro. bari sëñ Fall. barki yàlla bëgg naa lool. bis waa Sénégal kontaan nañ rek. kontaan nañ. Sénégal kontaan nañ rek waa Pikine ñoo ngi nii Pikine de gars fi ma nekk de gars yi waa Pikine dinañ la ngi lay bàyyi xel bu baax nag ñu ngi lay seetaan de. nuyu ma waa Pikine ba lañ est-ce que am na benn vidéo bu ma wax lu amul. non gisaguma bi quatrième match laa liggéey Sénégal parce que maa taxaw seetaan leen Coupe d'Afrique ñetti match lañ am benn bii lañ am penalty man ma taxaw wax ñu ne dama réew man leen comme damaa réew les quatrième match bi damay dugal deux bii. waaw na wala duggul. dugg cinquième mars man leen damay dugal trois bi film ñëpp di ko seetaan dugg na wala duggul. lu ma leen waxoon coupe coupe coupe d'Afrique day ñëw Sénégal. man maa leen doon Karamba màgg na Karamba bu màggee lu muy def day xool lu musul ñëw Sénégal mu indi ko Sénégal. waa jeex na. léegi donc man dootuma wax kenn dara Sénégal ñëpp ak may seetaan dootuma wax kenn dara xamala laa bëgg ah. gars yi li ñuy def seen affaire mafia yi ñuy dawal laa bëgg ñu bàyyi ko. équipe bi fekk mu ngi am affaire mafia si sëriñ yi du mës a dem fen xamul tax parce que dañuy jël ay sëriñ yu xamul dara fay leen xaalis waa Sénégal xoola Sénégal ni mu toll ñëpp ñu yaakaar leen ñu dem ñu dem ba fee di tëdd di nelaw yow ngay basé wu si ñoom nan la Sénégal di jëlee coupe. cinq sëriñ cinq sëriñ cinq sëriñ déggoole ma la cinq sëriñ yu mel ni Karamba coupe d'Afrique billaay wallaay tallaay bu amee coupe d'Afrique bu ñu teg si àdduna dañ koy jël monde entier. mais xamal lu jafe pour nga gis ku mel ni Karamba dóorkat yi ñoo bari seeni marto lañ yor mel na ay menuisier. waaw man yow gëm naa am na beneen booy boo xam ne tamit woon day dem Touba booy boobu noonu. waaw. sëriñu boobu noonu te tey keroog mu doon naan maxime yi dañ cee liggéeyul. waaw kooku kooku tamit day wax tey day ñaan yàlla tax lay wax. kan la si. man damay fàtte de waaye day sol yére man xaw ma ko sax man xaw ma ñaan si match bi de. waaw xam nga lu ma xam. waaw xamala mooy sëriñ. xam nga lan mooy xam-xam. jinne mooy liggéey football. dangay ñëw taxaw nga ne tey damay dugal temps de balle Sénégal ñiy ñaan si match yi bari na. am na wala amul. mais amul kuy dëggal boppam ne Karamba tey taxaw na la tey damay dugal temps de balle def ko vidéo publier ko kalla xale yu ndaw yi sax ñu ngi ñaan xamal lay bañ a ah? ñeen di potoxluwaale si mat Sénégal ay day ñaan kenn ñaanuñu dara maa ko wax. ka day ñaan ka nga ne day ñaan mus ngaa taxaw dégg mu ne la Coupe d'Afrique bii damay dugal temps de balle ci wax amuñu fit bi. meilleur marabout mooy wax l'équipe national Coupe d'Afrique Karamba le Messi le Messi. billaahi. Matar ba laa dégg mu naan Matar ba moo ma engagé. mu naan. Matar ba ma engagé. mu ne waaw te te tamit yow li nga ci yow li nga preuve bi nga woon gisagu ma ko woon waaw léegi kooku est ce que mos naa jël ko bu football ba Matar ba di ko engagé. xam nga tey xam nga tey réew mi moo toll foo xam ne tey sëriñ ñiy jël di leen yóbbu national nationale dañ la war a laaj an say trophée an say coupe. nañ bàyyi mafia bi ñu dawal waay. nañ bàyyi mafia bi ñuy dawal si équipe bi dañuy xool benn man du ma tudd turu kenn bu yeboo sax man ma dem ak ma ñàkk bañ dem parce que man kenn fayu ma maay fay sama bopp. dañuy xool benn sëriñ bu xamul dara ñu wax état bi laaj état bi lu ma di million pour jox sëriñ bi 5 millions téye cinq millions yu seen poste te ñoom ñu koy téye xam nañ ni sëriñ bee xamul dara. loolu si lan la bokk waa Sénégal di ko seetaan mafia boobu tey lépp laay kalaatal lépp maa tey. bu leen neexee sax bu ma équipe nationale jël. man ñoo neexal du ma neexal kenn. waaw. jot na nga def conférence live laa nekk nii maa ngi nekk nii live émission def direct. kon la woowaat dinaa sax dinaa la woowaat. déggoo saf si Sénégal nga wax waa Sénégal luñ bëgg ci Karamba yow ñu dégg ko ñëpp. alo lan laa man maa def émission bi en direct instant yi ma ne dama bëgg nga la nga nga wax sa message lii la metti en fait euh, amoon la metti sax parce que Karamba euh, yóbbu na la coupe du monde ka yaakaar naa kontaan nga mais dama bëgg rek euh, nga lancer message li nga xam ne mooy nguur gi li nga xam ne mooy Matar Ba suma papa suma xarit ministre des sports nga la nga envoyé ko message tey ak le président Macky Sall ci Karamba parce que kii kat yaakaar naa mooy li ki nga xam ne moo bégal Sénégal moo yóbbu Sénégal coupe du monde moo andi coupe bi Sénégal lan ngay lancé boo lancé le président. Euh, moo sacrifié boppam tour deretam pour Sénégal gagné dee ko si boole. Uh-huh. Mm. man damaa toog ba ca Karamba ma koy seetaan ci YouTube. Uh-huh. man damay teewlu sëriñ yi may seetaan bari na ma gis ay numéro am bari nañ. Mm-hmm. mosuma jeewoo kenn ku dul Karamba. karamba day def ma gis. Hmm. ndax ma si yëpp damaa gis man football damaa ñor équipe bi réew mi damaa ñor. ndeysaan. man ba ñu éliminé Cameroun. Hmm. Cameroun ba ñu éliminé euh, quart de finale damaa metti woon. dëgg la Algérie Algérie éliminé mu metti ma. Hmm. ma toog dugg ci YouTube bi te sëriñu Sénégal yi chaque ku ne danaan nawetaan maa yóbbu équipe bi maa def lii. ñuy football euh, ñuy football euh, Coupe mënuñoo dugal mënuñoo ñu fubal ba premier tour benn bii lañ dugal. dëgg la trois matchs. trois matchs taxaw saaga sëriñ yëpp. ne leen lan moo tax oowu leen seen baay ñu ne damaa réew. lu tax oowu seen baay man maa leen lan moo tax oowu seen baay. te ni ma doone seen baay dama koy appliquer. après ñuy football ma kenn woo ma déedéet xamuñu leen sax su dee wax su dee wax naa ne pour mu oo non li war amul tur man maa fi kay man man xam nga man dama direct dama dëggu man kay amul keneen ak noonu di woote allo booy fooy wootee nii mbuur émission la nekk live direct looy wax ci Karamba si match Sénégal bi ak Karamba li mu liggéeyal Sénégal. Karamba borom baax la <laughs> waaye gis naa la ci bi dimbale ma yow xam nga ne yow yaay lépp yow bu dul yow du bougé de yow yaay bàyyi jinne yi. billaahi képp ku nekk jinne bu ñëwee jàkkaarloo yow day raam. billaahi. yow yaay Karamba jinne. jinne wu Fa jinne wu Bemba. le messi des jinne. le messi. le messie des djinne. le roi des djinne. ku daaneel jinne bu gën a biir Gambi sama kanam. ku ko daaneel. yow Karamba. jinne yi dëkk fan. jinne xoolal. jinne yaa jinne boobu nee fu mu jógee ah? xaw ma naka. jinne yaa. jinne yaa merci. maa dugg maa dugg Gàmbi tasaare Gàmbi jàpp ba jàpp ponkolum jinne bi nga xam ne moo sax biir Jinoria. loolu de sama kanam la man Rosalie Diatta maa ko wax c'est Aliou Sitoé Diatta fekkee naa ko man. billaahi. walkay. voilà après naa la woo ci kanam dégg ma jàll yéen numéro yi ñu dugg. ban émission nga nekk yow. damaa nekk ni damay def émission ni te damay def live direct pour àdduna seetaan ko. lan la YouTube ah. émission ba léegi rek karambal yi doy na waar yaakaar naa man sax xamatuma lu may wax yaakaar naa parce que lii lañ bëggoon li yaakaar naa am appel kese man naa def émission boobu kam man bi ma xëyee ba tey gis na ni muy sonné ñëpp Sénégal ñëpp dañ may woo di ma ñaanal façon nit ku nekk ak may woo di ma ñaanal xam ma yàlla na seen ñaan nangu ñun mënuñu dara ay ndaw lañ ñoo xam ne tey yàlla moo ñuy dimbali rek parce que àdduna fii li ma leen mën wax kenn mënul dara ku yàlla dimbali moo fi nekk yàlla nañu yàlla di yàgg di dimbali ñun ñëpp si kàttanu yàlla alo waaw. Karamba. Jinew Fa Jinew Bemba le Messi. ah na sa jàmm yàgg. bilaahi. man la xaritu Cheikh Touba bi la doon woo démb. bilaahi. waxoon nga ma lu leer de. bilaahi. na sa jàmm yàgg. ba sëñ Fallou. maa lay ñaanal bu baax a baax bu ma toll. bilaahi. salaamaaleykum waaw ñu ngi ziar sëñ bi. bu baax a baax. kontaan nañ. waaw wax billaahi. bu dee tëdd la. wala dëmm. boo ñëwee. waaw bu la neexee nga taal sa téléphone nga filmer bu rombee bu rombee quinze minutes bul ma fay. xewal gi ma la bu yeboo mu doon jinne bu yeboo mu doon dëmm bu yeboo mu doon nooxoor bu yeboo mu doon sëriñu dëmm maa tey. 15 minutes laa la may sa téléphone cornol du ko romb le messi. mais tey tey xam naa da ngay bàyyi après nga parce que damaa nekk si émission tey actualité bi lan la si match bi laay wax match Sénégal bi. Ah, waaw na jërëjëf. baax na jërëjëf. ok ndeysaan jërëjëf dégg nga waa Touba macha allah ba léegi appel yi. chet tët waaw. salaamaaleykum. salaam. maaleykum salaam. waaw maa ngi def ci ñu ngi ziar soxna si. waaw. man de bëggoon ñëw foofu Fadite. kañ nga bëgg a ñëw. suba mën bu yàggee ku la ni yàgg na lay xaar. <laughs> dégg nga ko. <laughs> la. loolu après damaa nekk émission. yaa ngi may dégg ah, mais boo préparé rek suba nga ñëw incha allah dégg nga. waaw Mbour. Mbour Saly l'enfant de Petite Côte bi boo egsee croisement Saly boo ma oowee direct. waaw. ok. ok ñu démarrer suñu émission nag xam na rek te appel yi parce que bu ñu mënee topp appel rek xam naa tey fi la ñuy fanaan parce que Karamba yaakaar naa ko soxla xam naa ñu rek dem ci euh, appel yi bari macha allah euh, message yi bari na mais ñu off appel rek dem ci li nga xam ne moo fi an tey muy match bi dem ci li nga xam ne tey euh, mooy mooy moo moo ñu tax a wu tey ñëw fii ci Mbour tey Karamba appel yi nag dañ koy arrêté nag de ah jëlal bi alors naka sant yàlla kilifa gi. waaw maa ngi lay dama jaaxle barke Serigne Touba. lu la jaaxal sëñ bi loolu jaaxalul yàlla. dama amee loxo nga amee loxo bi daal yenn saa guddi day day bàyyi mm. ba suba nga a dégg nga suba incha allah. waaw. ok bàyyi ba suba nga moom bàyyi sëñ bi. ok jërëjëf. xam naa dañuy fay téléphone bi rek commencé émission bi macha allah kenn ku ne ñu bi du àgg xam naa ku nekk ngi wax soxla mais tey li ñu fi andi tey spécial la lii fi andi muy lii moo fi andi muy ballon bi moo fi andi te bi nag buñ ko waxee tey mënuñ ci génne Karamba macha allah mooy bunt bi mooy lépp tey te ñu war waxtaan ak moom ci lu bare bare bari tey ci football Karamba gis nañ appel yi bari na mais Karamba dañuy off appel yi. léegi dañuy off appel yi xaaral ma yóbbu téléphone bi. mode avion. wala ñu ama ah, def ko ci silence. ok def ko silence. ñu toog ak ci Mbour tey gis nañ macha allah euh, jarul ñuy répété waat yaakaar naa li fi am yëpp gis nañ ko depuis coupe d' bi. Mhm. ba ci coupe du monde bi instant yii ñu war a qualifié. macha allah gis nañ liggéey ngay liggéey euh, xam naa image yi nañ ko dawal léegi incha allah ci kanam euh, Karamba ñu gis encore euh, qualification bi bi ñuy dem fële nga xam ne mooy Égypte nga xaw a téye sa loxo parce que am na ne moon ñu demee ñu caw ñu 1 mu mu metti trop Sénégal yëpp jaaxle ñu war a suyewaat instant yi fii jam ñaajo ak li nga xam ne mooy Égypte Sénégal yëpp di ko jaaxle mu metti trop nga xam ne 1-0 enragé wuñ niil arrangé wuñ deux moo ñu arrangé woon wala exemple ñu gañe tey mu metti trop nga yëkkatiwaat ni bi ñëwee wala match nga génn def ay vidéo def révélation yu méttee métti ne incha allah da ngay yëngal caax yi da ngay gagné li nga xam ne mooy euh, Égypte. waaw parce que match bee ñoom seen match bi ñu fekk ji kële nu mu tuddati Égypte Sénégal fekk ji ko. Mm. match boobu defuma dara liggéeyuma. bi ñuy bi maa ngi tëdd di nelaw. dëgg xam nga mais bi ma yeewoo laajte ñu ne ma gagné nañ Sénégal daf maa metti parce que dama ne leen lii du yoon. Mhm. am na loo xam ne défaite la. Mhm. parce que boo gisee mooy li may kaas sànq rek. Mhm. parce que am na ñoom boo basé woo si ñoom loolu lañ lay def nga war a qualifié doo qualifié. ñii di crise fii ñii di daanu fii ñii di xëm ñii di rey seen bopp. te gannaaw yàlla suñu boroom. gannaaw yàlla bi ñu sàkk sa ñañ koy yaakaar duñu dara. comprendre nga. loolu ma metti moo tax ma defaat ne leen heure boo leen jommee maa leen ko ñaan woo leen seen baay mu defati jaloore YouTube bi yëpp seetaan nañ ko. Mhm. heure buñ jommee waxuma benn kilifa. Mhm. sama génération laa wax. Mhm. ñu ma maaseel. te am na ñu fi nekk ñu liggéeyal équipe bi moo tax ma leen soo leen jommee oole seen baay mu defaat jaloore. tubaab xamul football bu rafet bal bi si camp la am. moo tax man leen maa ngi benn bal bu assuré sama béy boo xamante ni tey nit mënul wax du jinne du dëmm du sëriñ du kenn amul nit ku mën a wax ba du ma yëngal mbaali amul kenn ku mën a wax tey ba du ma yëngal mbaali ba képp bépp naar bu lang si mbaali ma yëngalaale la barke allah ji fàllu maa ko wax àdduna yëpp seetaan ko man leen maa ngi benn bii bu assuré te dama koy dugal si camp yi ñenn ñi lañ luñ commentaire sama vidéo karamba benn bii bi baaxul ñu ne Karamba benn bii bi gañal la Sénégal Karamba benn bi ñun ay jinne lañ yor benn bii boobu moo tax Sénégal dem sëri ma ni gars yi gars yi fu mu toll nii xamul tax dañoo soxor ñen dañoo soxor parce que Sénégal li tax ñuy soxor gis ngeen li ma def si Coupe d'Afrique bi ah nii may def live nii di wax rek ñu ngi profité di signaler sama compte yi pour ñu tëj ko dégg ah? lii may def nii rek ñu ngi signaler sama live bi pour tëj tëj nañ sama ñaari sa fu mu toll ma doon def tëj nañ ñaata ñetti live yi ma doon def yëpp tëj nañ ko pour lan Sénégal ngeen koy seetaan bëgguma saaga nag quoi. lii du yoon quoi. tey maa ngi def live pour bégal sénégalais ak li ma liggéey Sénégal yëpp ngir jëmmi Serigne Fallou Mbacké maa ngi toog pour ñun ñu kontaan gis ngeen liñ def boole ñu signaler sama compte ñetti compte ñetti cont yëpp dañ ko bloqué. mais ñu ngi bloqué ñetti cont yëpp. ñetti compte yëpp sama ñetti compte yi ma ko tàmbali léegi si émission pour def live lañ signalé ñu bloqué ko ñu ko bloqué mooy doomu dëmm yi. bëgguñu ko baax bëgguñu ko am dara man xam-xam laa yor bu assuré man du lii moo may wone man du ay live moo may wone parce que man léegi léegi laay def. barke Serigne Fallou Mbacke pas ay live wala benn affaire dama bëgg gars yi kontaan mais gars yi ñoo soxor gis ngeen xam nga xam nan lañ mën a boolekandoo ñetti kii. ñetti compte nu mën a nekkee pour lan mais terewul day dugg de. ni may dugale bal yi laa laa koy dugale far fos day dugg mooy raw bal mooy raw bal bal bi yëngatu si caaxu naari far fos day dugg da ngeen da ngeen maa booleke. Mm-hmm. YouTube bi mu may xaar. Mm-hmm. ma lancé waale message YouTube bi mu gën a am doole. yéen waa YouTube am leen jàmm rek ma gën a lancer waase message YouTube bi mu gën am doole YouTube félicitation YouTube félicitation YouTube man kontaan naa si YouTube bi bugguma sax tudd tur xool defe yaay tëj nañ sama ñetti compte lañ tëj yu ma war a laay fa pour Sénégal kontaan pour lan. pour lan wala wala site boobu dafa xaale ay dëmmu ñu ko dirige dafa xaale ay dëmmu heure bu may def émission baayu jinne ak baayu dëmm yi heure buy def émission dañuy signaler ñoom dëmm yi ñoom ñooy okkante ñooy ootante ñooy inventé ay message signaler ma pour ñu tëj sama compte yi tëj nañ ko mais terewul vidéo bi may def day jàll YouTube direct ngeen mu neex leen da ngeen koy seetaan ngeen mer da ngeen koy seetaan ngeen jooy da ngeen koy seetaan parce que man àdduna ñoo ma soxla yàlla moo ñu dimbali ba benn sit kese amu fi. am naa nañ euh, la déglu rek mais ñu dugg focus rek ci euh, euh, li nga xam ne mooy match match bi démb gis ngeen ni mu demee gis ngeen ni mu bi ma ñëwee gis ngeen bi mu ñëwee ni mu demee bi ma ñëwee stade mhm. ñëw naa si stade bi def samay sarax am am sarax yoo xamante ne tey am sarax yoo xamante ne tey xam nga maa ko jënd sama xaalis yi joxe naa ko si dëkk yi. yii si stade bi laa ko war a joxe. comprendre nga mhm. ñëw naa ba stade xam nga indi fa indiwuma sax bur wi mhm. dama ñëw pour Sénégal gagné ñenn ñi téye ne ma doo dugg pour lan ñu may téye waaw dinaa dinaa ñëw foofu sax. waaw ñenn ñi dugg la ñu ne la doo dugg wala di nga dugg dinaa ñëw foofu. mais mhm. avant rek ñu egg foofu. dama gis match bi dañ ko jël au sérieux. Mhm. parce que euh, euh, dégg naa sa ci sa nga ne am na ku la mhm. nekk ci fédération. Euh, ne ñaata lañ lay fay ci bi. nga ne de nga ne ko bugguma ku ma fay dara parce que sénégalais laa yow ngay lan moo tax nga wax loolu. li tax li waaw li tax encaissé wu ma xaalis kooku maa ngi encaissé xaalis taxaw ma ko maa ngi liggéey maa ngi encaissé xaalis maa ngi faj samay soxla mais suñu réew bu soxla bu état soxlaa ñëppay xaar état daa bëri doole état bu soxlaa ñëppay xaar tey bu doon armée ñaanu ma ko yàlla te yàlla bu mu am si àdduna bu doon guerre état am na sañ-sañu ñëw ne ma coppet ne ma kaay dangay ngay guerre far force dinaa dem wala duma dem. da ngay damay dem lii guerre la. kon waruma xaar état di ma wala may xaar équipe nationale di ma loolu moo waral ma am sañ-sañ boobu ne leen bu leen ma fay dërëm yow mi may fay sénégalais la yow mi may fay sénégalais nga man man mi ngay fay lan la sénégalais kon waroo maa fay waruma laa fayeeku yow nañ fusionné ñu liggéey ni ñuy liggéey lan la ndam nga bëgg ndam laa bëgg man leen nag bu leen ma fay nañ bàyyi ba match bi jeex ñoom ñoo xam lu ma yelloo ñu joxuma ma ko tal la yelloo sax basé wu ma ci mm-hmm. man li ma ñor xam Sénégal kenn weranteetul yëg nañ di Karamba di def wala yëguñu ko état bi laa bëgg mu wax ci man état bi laa bëgg mu wax ci man li may def yëpp ñu ngi koy seetaan Macky Sall moo gën a bëgg victoire ci àdduna Macky Sall moo gën a bëgg victoire ci àdduna li ngeen di zibeele yéen bu bal duggee buñ filmé woon la muy zibeele këram ngeen waaru moo gën a bëgg victoire ci àdduna Macky Sall yaay suñu kilifa yaa ngi dégg li may wax dama bëgg ñu recevoir ma palais laa bëgg biir palais laa bëgg gars yi recevoir ma pale xool fu oto gën a seere ñu jëndal ma ko man Karambale Messi soxlawu ma sax équipe nationale di ma fay match bu équipe nationale am mën naa ko liggéey mais li ma bëgg na ko Sénégal def oto bu bees poul laa bëgg Macky Sall la jëndal ma ko Macky Sall laa bëgg man Karamba meilleur marabout l'équipe nationale coupe d'Afrique oto bu bees poul laa bëgg Macky Sall la jëndal ma ko. mais bu la ko jëndalee loolu yàlla moo ko yor. yàlla moo ko yor parce que du ma ni dinaa indi coupe du monde mais man gëm-gëm laay demee en tout cas match bu mu am suma defee vidéo ne la tey lii laay def loolu laay def su ma la nee tey lii laay def loolu laay def yàlla moo moom ndam te man bàkkoowuma kenn si àdduna ku yàlla lépp lu may def si yàlla laa ko teg nest pas man ba gannaaw yàlla sëñ Fallou aw lu may tiit équipe nationale bi ma commencé wax ba tey ban video laa wax lu musul am si match waaw yi li nga wax yëpp amul dem leen abonné Karamba TV. daw leen yéen ñëpp ngeen daw abonné Karamba TV daw leen képp ku ma seetaan dem leen abonné ji Karamba TV ñëpp nañ abonné Karamba TV. waaw macha allah match yëpp nga def ci effort mhm. mais rawat bi tey ci nga gën muy euh, qualification bi tey fële si jam sama loxo bi laa sacrifié. maa ngi ñëw <laughs> yooyu parce que da nga ne. li gën a garaaw dañu ne benn bii lu mu a jaar ci benn bii. ñu woon mais. mais mooy gagné match bi. xam nga benn bii boobu woon ñaar ñu wala trois. Mhm. mais andi benn bii bi dëggal ko ne benn bi ñu laaj la. sa la trois fois benn bii boobu incha allah lu mu metti metti naa ko andi. te damay gagné match bi mais nag benn bii laa xam ne. naa yëngal xam loolu soo ko waxee Sénégal da leen jaaxal. jaaxaloon na ñëpp man dina jaaxal. su dee benn bal dama koy dugal. benn bal ah, gagné Sénégal match bi. su dee benn bal léegi ñëpp. ni benn bal manul gagner Sénégal. lépp mu ngi sama commentaire. <laughs> YouTube uh-huh. pourtant benn bal boobu dugg na. dugg na moo tax ñu dem série moo tax ñu gagner ban balu duggaat. match bi ñaata bii wa si am. benn man maa ne leen bu dee benn bal kese kese kese kese kese moo am si match ma dugal ko Sénégal mu gagner. te dugal naa ko. te dugal ko yàlla ñu ko jàppale. Mm-hmm. ñu dugal ko. li ñu war liñ séqoon ak suñu réew def nañ ko. du contrat bu ma signé kenn mais sama réew la li ma ñoroon defal naa leen ko te yaakaar naa àdduna yëpp kontaan nañ képp ku si kontaanul xaw ma ci yow dara. mais li ma liggéeyal Sénégal yaakaar naa ñëpp kontaan nañ si. Euh, da nga wax loolu pare macha mhm. a ñëw stade ba mais bi nga ñëw da dugg ci stade bi dañ la ne da ñu may euh, nga sacrifier sa xam ne mooy sa muy deret yoo ne métti lan moo waral loolu lan moo la ko jaral loolu léegi exemple ku jël ay quatre cent mille def ko ay sarax waa déglul ku jël ay quatre cent mille def ko ay sarax pour équipe nationale ah pour réewam gagné ñu waroon ko fey équipe nationale woo ko ñu war ko fay mun leen bu leen ma fay def ñëw pour liggéeyal équipe bi gagné est ce que man yoon la ma ñëw stade ñu may daggloo ay ticket est ce que ce que yoon la ma ñëw stade al police yi di ma téye gendarme yi di ma téye pour lan pour lan te ñoom ñëpp ñu xam ma xam li ma tax a jóg pour lan ñu may téye ma war a dugg ñu ne ma doo dugg li addiyee sëñ Fallou la loolu moom ma metti moo tax ma sacrifier sama loxo bi dagg ko ne leen lii mooy victoire bi mu ngi nii sama loxo bi. déggoo li ma la maa sacrifier sama loxo bi tuur sama deret ne leen lii mooy victoire Sénégal bi tey tey lu metti metti dama koy gagné. tey lu metti métti dama koy gañe te lii dama koy filmer Macky Sall dina ko seetaan. tey lépp lu dar Sénégal tey te barki rasulillahi dañoo am sens. ñoom si bi Sénégal gañe dañoo am sens comme Sénégal gañe na mais tey ku ñëw pour xeex pour Sénégal gañe nga koy téye pour lan ñu may téye. te ñoom ñu xam ma ku ci laaxatu jël sa téléphone woo ma ku ci laaxatu jël sa téléphone woo ma wax ma sa soxla ma ñëw ba stade ku nekk di jaay ay ay ay kii état bi soxla te ñun ñooy police yi ñun ñooy police yi ñun ñooy gendarme ñun ñooy procureur yi ñun ñun la ñun la ku sa papa nekkul sa rakk mu ngi si wala sa mag wala sa xarit wala sa ndijaay wala sa lépp kon ñun la nañ dawalante yërmande waay bàyyi tey ma maa merlo ba may jël bitil dóor ko dagg sama loxo bi seen kanam ñu koy gis man leen victoire baa ngi nii sama loxo bi ni gis nga ko man leen victoire baa ngi ni tey lu metti metti damay gañ a bi benn bii bi ma war a damaa saaga fi ñu taxaw man su ma xasee bay liggéey faalewu ma ko taxaw sama yoon sa garaat bi la yàlla may. su ma xasee ba war a taxaw pour liggéey faalewu ma sa garaat boobu la yàlla may yow yow gendarme boobu laay waxal tey bi nga seetaan vidéo bi di nga ma dégg faalewu ma ko. garaat nga yor yow la yàlla may garaad bi garaaw dëgg la loo ma teg dinaa ko nangu mais li ma lay teg kenn du ko teggi dootoo jariñ sa mbok si àdduna man kenn duma laal mais jéggal naa la ngir jëmmi Serigne Fallou man naa ko man naa la toroxal sa mbokk doot ñu la jariñoo mais jéggal naa la ngir jëmmi Serigne falu mbake jéggal naa la si xol bu sedd guy ngir jëmmi Serigne Fallou Mbacke li ma ñoroon li tax ma def lii yëpp ba sacrifier sama loxo bi mooy Sénégal gagné. def naa ko sacrifier naa sama loxo bi wax naa leen li ma leen wax nee naa leen boo leen ma fanaan loo fii sax boo ma tey woon boo ba suba damay dugal bal bi. barki Seydina Mohamed ma dugg si stade bi ak ma ba ñu dugg si stade bi laa yemale mais bal bi tey far force day yëngatu si mbaal yi far force la. loolu far force la wax naa leen ko avant match bi nee naa leen jinne mënu si dara. dëmm mënu si dara ngay sëriñ mënoo si dara xoolal lool ma wax yëpp ne damay dugal bal bi far force ma ñëw ba estaat ay gendarme di ma ak ay policier pour lan te xoolal ñi ma bëgg si ay gendarme ni mu bare ay gendarme yu bëri yoo xam ne Karamba rek la ñuy béggee ay gendarme ay policier ay commandant ay commissaire xam nga ñu bëri ñoo xamante ne tey Karamba la ñuy béggee maa ngi leen di nuyu ñoom ñooy suñuy kilifa ñoom ñooy suñuy kilifa mais nañuy wax ak ndaw yi ñuy ni nañu wax ak ndaw yi ñuy yónnee ñu xam ñu ñu war a téye ak ñu ñu warul téye man aw ma jotu dem si ay stade. match lu mu neex neex neex xoolal Barcelone bu doon football stade bi gratuit du ma dem man aw ma jot bi mais su ma nee bërët sama équipe moo ma ñor Sénégal sama deret. sama deret moo ma ñor moo tax bi mu naree xaat ma sacrifier tour sama deret deret jooju ma tuur mooy jàmm si estade bi. Uh-huh. kan moo dee si stade bi. amul kay kan moo dee si stade bi man maa sacrifié lépp sama bopp joggi sama tànk man karambal le Messi. match lu ne ma la wax yàlla moo yor lépp de. Mhm. mais man ay jinne laa yor. Kumburoo ay jinne laa yor six cent nangam mille taalibe jinne laa yor. six cent nangam mille taalibe jinne laa nee naa leen xajul si stade. trip laa dugg si stade bi. ñoom ñi ma doon téye mais nag. maa maa ngi leen maa ngi leen di remercier waaye si benn côté quoi dëgg la yëngal naa seen kaw xam ma mais lañ dawal moo ma neexul parce que maa ngi leen di remercier parce que foo dem fekk fa ku bon di nga fa fekk ku baax. am na gendarme yoo xam ne fa leen fekk ñu baax lañ maa remercier ñee dañ doon bañ ma dugg gendarme yi ñoo mujjee jël seen oto ñoo ma yëpp accompagner ma dugal ma ba si biir stade bi. man leen sarax si stade bi laa koy saraxee te su ma ko saraxee bal bi day dugg avant match bi laa dugg stade bi yëngal stade bi ñëpp seetaan nañ ko ba stade bi riir ma joxe sarax ne bii baa joxe sarax bi match bi démarré may wàcc bi may wàcc bi bi may la match bi di péré démarré boobu ga yi ñu ngi kii si laa wàcc gendarme yi laa taxawal te li may wax nii su dee amul yàlla na ma yàlla rey guddi tey ay gendarme dañ ma seetaan man leen da ngeen a respecté seen liggéey naw naa leen si li ngeen def sikk kenn mais pour ngeen xam kan mooy Karamba ak lan moo fi tax a jóg ñu ne ma man leen taal leen seen téléphone yi ngeen filmer gendarme ay gendarme nañ ma déglu man leen bii bii di dugg yéen yéen moom yéen laa ko tudde yéen gendarme sama benn bal bi ma war a dugal yéen laa ko tudde filmer leen àggalaguma bal bi ne farat ci camp yi trois minutes trois minutes nga wax trois minutes trois minutes la dugal sama bal trois minutes benn bal trois minutes borom trois bi yaa ngi nii judd année quatre-vingt-trois doon na ñetti guy. borom ñetti guy mais. borom trois yaa ngi nii. sa secret ma la borom trois bi yaa ngi nii juddu année quatre-vingt-trois numéro trois cent soixante-dix-neuf douze quatre-vingt-trois sama benn bal si trois minutes laa ko dugal kon jërëjëf yàlla suñu borom sama barke maam barke borom ñetti guy Karamba barke borom ñetti guy sama barke maam Karamba le Messi macha allah la mel ci mm-hmm. borom njëtt guy. Mm-hmm. bëgg naa laa laaj si bi nga songee policier bi ñëwee ak gendarmerie yi ban yëg-yëg nga am wala foofu noonu comme ni ngay fajee jinne nga gis si policier yi wala ay rab nga gis si policier ba songu leen ba tuur sa bere. non damaa say xaw war a jël si. mbërum penc mu war a jël si nga bëgg a sa bakken sax xaj na si. gars yi de nañu ne gaa yi gaa yi di gën a yàpp waaye du nekk la ñuy téye waaw du ku nekk euh, la ñuy téye tey mënoon naa jóge si stade bi rek def si tali bi lu garaaw def foofu lu garaaw kooku bu duggee si oto traversé foofu du àgg këram mais amul benn njariñ nañu xool ñi ñuy téye man lii bu mu trompé kenn bu kenn xool sama wat bi di ma xeeb lii mooy trompeau bi gis ngeen ko lii moo leen di trompé lii bopp bi lii mooy mu siba bi si ñoom. man kenn waruma téye amul kenn koo xamante daf may téye téye boobu ñu ma téye moo tax ma mer say kenn du ma téye Macky Sall soxla état bi soxla ñu war a jëlee ndam li mu nekk si gémmañu gaynde ndam lu nekk si gémmañu gaynde ñu war kaa jëli gars yi di ma téye kon damay tuur sama deret lu nekk si gémmañu gaynde kay pour nga ñem pour nga xam ne ñeme nañ jam ñeme nga jam jam wala ñeme nga xotteeku da ngay tuur sa deret soo soo ko jëlee si gémmañu gaynde déggoo de bal bi génnewu ma ko si gi xaw ma nu ma déggoo ma de. génn ko si buunu gaynde gi de si gémmañu gaynde gi laa ko génnee. ngeen baal ma ci wax ji. Mhm. man nii laay waxe xam ngeen mënumaa def émission mënumaa def émission ba mu jeex te du ma te du ma yëngal ngeen baal ma nag si ni may waxe yéen ñi may seetaan ñenn ñi li may waxe moo leen neex moo tax xam nga damay bëgg ñenn ñu kontaan wala benn affaire mais du sama réewande mhm. du sama. du sama ñàkk yëg nit wala du sama manque respect ñin ñi parce que am na doomu aadama yu nekk ku si nekk ak li nga xam ne moom nga bëgg si karamba ñii faj bi ñii spectacle bi muy def ñii lii moo leen intéressé mais ba tey du ma bàyyi damay àggali question bi mu wax. ok mais li ma bëgg di mais li ma gën a bëgg tey. Mhm. li ma tax ma déplacé ñu gën a suqali woo ci match bi. Mhm. ci président laajal Macky Sall lay wax sama loxo bi waaw. waaw. parce que damaa bëgg ba fi jógee ci kàttanu yàlla balaa yàgg dara ñu woola parce que xam na moo tax ñu woola du kesal ay woola pour xaalis parce que nemoo dara macha allah mais li tax pour nga jàppale Sénégal ñu bàyyi la xel Sénégal xam ne Karamba tey fi équipe nationale egg tey Karamba moo ko fa àggale du benn sëriñ loolu moo tax ma ñëw tey du say faj tey bëgguma waxu jinne yi waxuma bëgguma waxu malade yi li ma bëgg tey ballon bi lii ak Manar Ba le président Macky staff ñu ne la carte téléphone Karamba ñoo bëgg lii pour coupe du monde loolu moo tax ma vocal bi tey ci loolu. man de xanaa kenn dootu ma Karamba pour vel équipe nationale de man de xanaa kenn du ma ni man déggoo li ma la nee la may naa la bi équipe nationale sa soo ba tey bépp ku lu bu mës liggéey si équipe nationale internet bi jamono ñoom Senghor sax boo demee fekk ko fa. n'est-ce pas xoolal bépp maara ñu mos sa jël Sénégal ngay liggéey si équipe nationale nga xool ndax mos ngaa gis ku si def lu Karamba def Karamba kese mooy taxaw ne la tey match bi damay dugal temps de balle. kenn mënu ci prouver ay VAR lañu maa ci ëpp ay vidéo kan moom moo yóbbu VAR kan moom moo yóbbu VAR loolu nag yàlla moo ko yor bis mën na jot parce que yàlla rek mooy wax lu du dëñ comprendre nga bis mën na jot mën nga wax loo xam ne fekk yàlla moo def méngoowul wala benn affaire parce àdduna noonu la demee mais man lépp lu ma la wax dama say am sañ-sañ dama am gëm-gëm bi parce que ay jinne laa yor man defuma dara tricher su ma nammee tricher yàlla boo ma jëriñoo loolu may tricher. moo tax xam-xam bi ma yor nee leen du ma si neexal kenn du jinne du dem dëmm du client pour client yi may déglu respecté naa leen mais li ma yor du ma si neexal benn client client bu ma oo sama téléphone jotoo ma damaa jàpp yaa moom sa crédit maa moom sama téléphone. parce que appel yi ñoo bari suba ak ñu bëri dañ naan Karamba dañ lay woo duñ la jot wala benn affaire loolu kese la ku ma ci woo damaa sonn damay nelaw su ma sonnee damay nelaw am nañu kat dara. voilà ba léegi euh, mhm. moo tax ñu qualifié man dama man loolu la ñu wax. waaw àdduna nee nañ moo tax ñu qualifié du monde. Mm-hmm. est-ce que liggéey équipe euh, ba léegi wala day croiser man instant bi man instant bi wàcc instant bi wàccoon na ak équipe bi. non wàcc non. xaaral mais euh, Ba. xanaa loo loolu de moo mën a. loolu de moo mën a liggéeyaloo waat équipe nationale. def naa lépp ba sacrifier son bopp. Mm-hmm. allah. Mm-hmm. tey jël quatre cent mille francs. Mm-hmm. saraxe ko mm-hmm. te du Matar Ba moo la ko jox mm-hmm. du Macky Sall moo la ko jox du fédération moo la ko jox du kenn moo la ko jox sa moyen bopp la nga jël ko saraxe ko pour Sénégal qualifié gënul jafe li gënul bëgg nga def ko tey macha allah mais est ce que tey ministère sport Matar Ba bu la wooyee signé yow contrat pour yëguñu euh, yóbbu ñu fële ca tey jëlal ñu coupe bi signé yow est ce que kon euh, di liggéey wala bu la woowul tam di ba léegi. man de suñ ma oowee de benn Mara du topp man duma topp si Mara. Mara bu ma fekk équipe nationale sama ginnaaw ngay topp. déggoo ma de barki Serigne Fall buñ ma oowee Mara bu ma fekk équipe nationale sama ginnaaw ngay topp di ma laaj. maanaam doo topp man kon ma toog. kuy taxaw ne damay dugal bal bi kan moo ko ci def. kenn def ko man rus naa sama équipe sama équipe man sama deret sama équipe équipe nationale jël ma fii yóbbu ma ma football trois matchs mënu dugal bal. su ma ko defee xaru su ma ko defee xaru bii dootul ñëw man sama ngor mayu ko parce que àdduna ñoo may seetaan man mbaru penc laa loolu sama defet la man dama rus loolu moo tax kam li yi wax tey boo gisee man la sama liggéey si loolu wóorul xamul tax man la sama liggéey si coupe du bi wóorul xamala moo tax man la sama liggéey si coupe du monde bi wóorul man lu ne defal naa ko Sénégal Coupe d'Afrique bi bi mu démarré bi gars yi jaaxlee trois matchs amuñu bii si la àllu depuis boobu ba léegi maa ngi génne samay sarax mm-hmm. di liggéey di jaayanteel Sénégal di jaayanteel Sénégal di jaayanteel Sénégal ba Sénégal jël Coupe d'Afrique te avant ñu koy jël wax naa leen ko Sénégal jël na Coupe d'Afrique bi mu jëlee Coupe d'Afrique dama ne woon sama jaan wàcc na dootuma liggéey mm-hmm. parce que dama yaakaar sëriñ ñi ñu jël dinañ qualifier équipe bi dégg nga si la toog seetaan ñu fekk ci équipe bi équipe bi dóor leen lan 1-0 fekk may nelaw loolu moom metti metti boobu moo metti nag ma xam ne en tant que sénégalais su ma toogee ma jàpp li ma jàpp ma continuer seetaan loolu baaxul Sénégal moo tax man leen bu ma kenn fay dara. su dee benn bal kese dama koy dugale sama réew ma gagné barke Serigne Fallou Mbacke maa ko assuré dama koy dugal si kattanu yàlla. dañoo assuré naa ko dugalal naa leen ko sacrifié naa sama bopp ba Sénégal qualifié coupe du monde. jëlal naa leen coupe d' Afrique naa leen coupe du monde. kon warumaa jël warumaa toog sax di wax si lii sax pour nit di ma oo moo tax man la sama liggéey coupe du monde wóorul Sénégal yéen ñëpp gis ngeen li ma def gis ngeen ni ma leen jàppale parce que jàppale wu ma leen bopp laa jàppale mais Sénégal laa bëgg gaa yi ñu bàyyi naxaate bi sëriñ yi ñuy jël tekki dara xam kenn xamu ci loo reere biig kenn xamu ci sax loo fanaanoo Hmm. Hmm. Hmm. man waaw xam-xam fu mu yem doole si yàlla la yem xam-xam si jinne la yem doole si yàlla la yem xam-xam si jinne la yem man dugal bal du gan man nee naa damaa jël kub yëpp sëriñ yi yëpp déggoo li

ku yore ay jinne daa jar ngay seet man ma taxaw bàkku ni 600 nangam mille ba jinne laa yor xanaa ma bañ a décider pour liggéey mais su ma jaree décider pour liggéey ba def li may def man façon jinne bu la yor am naa jinne kat am naa jinne defarkat am naa jinne nettalikat jinne information lépp laa yor. yaa ngi may dégg mais soo gisee affaire football duma ma a wax football fekk match bi jeexul gagné goo football bu mu doon fekk arbitre sifflé gul parce que tey Karamba mën na indi benn balam. tey nii day dugal bal bii nii. tey su ma équipe bu indi woon sëriñ bu mel ni man xam li ma xam kon mën naa perte sama bal bi war a dugg xamul tax. tey mën naa ñëw dëggal sama bopp ni bal bi dama koy dugal sëriñ bee ñëw xool gis benn bal bi mu leer nañ mu wëlbati ko si ay sarax ba bal boobu buy dugg heure la ko arbitre bi tiir day yàqu. yaa ngi may dégg kam keroog ama match bi nee dama doon nel avant match bi lu ma la wax man la naari benn bal lañ yor bu assuré wax naa leen ko te liggéeyuma si. mati bi ñu gagné Sénégal 1 barke Fatiha ak Serigne Fallou bii nii man leen naari benn bal lañ yor bu assuré fu mu toll nii kuy liggéey si équipe bi waxal nooy lonkartee bal boobu buñ la xasee ba dugal rek jeex na. Mhm. loolu kese moom merloo mais pour dugal ay bal si camp yàlla moo ko yor mais dari jinne moo ci gën a gaaw. si sëriñ waxuma yàlla de si sëriñ. di ku yor kurus di ñaan ak jinne moo ci gën gaaw jinne ku yor jinne kese moo mën a toll fii di football Europe. yow nan xamu lay woon ni yenn sëriñ yooyu may wax dañuy tricher yow noo toogee fii bëgg a yor sa kurus fii toll fii yor kurus sa kurus googu nga yor ko fii ba gisee liggéey Europe. nu mën a nekk si mat. nan ngay toogee firi sa kurus gu toll ni jaanu saamaar. nga ne da bëgg liggéey Europe pour dugal bal nu mën a nekkee. déggoo ma de xamala mooy dugal bal yuuxu ndey ji nay xët seen ndey ñuy rappi rappi. man jinne bu ma yuuxu nga naaw. mais bi osé benn bi nga waaw benn bii bi loolu yàlla moo ko dogal rek. waaw yàlla moo ko dogal gannaaw yàlla jinne yi nga xam ne farlu nañ te boo gisee ma gën a tuur sama deret bi ma egsee foofu tuur sama deret parce que avant may dem stade jinne yi dañ ma waxoon pour ma ut ñetti ginaar yi dañ ma waxoon pour ma ut ñetti ginaar yu xonq pour rey ko mais dama dem bi may dem dama ko fàtte li gën a yokk tax ma def loolu. waaw. dama roon ma la wax dama waroon a rey ñetti ginaar avant may dem stade dañ ma wax pour ma rey ñetti ginaar yu xonq. yaa ngi dégg mais soo gisee dama ko fàtte ma dem ba stade damaa bëgg yëngal stade bi moo tax ma sacrifier sama bopp. deretu nit moo gën a foor deretu ginaar moo gën a foor bu xar moo gën a fort bu kii moo tax ma sacrifier sama bopp sama deret ji tuur ma nandal bagage yi sotti ko bagage yi gën a say jinne yi dañoo bi ma naan jinne yi dañoo gën a say moo tax ma doon def ak nii gars yi dalante boobu amatuma lu may tiit amatuma lu may ragal ndam rek laa gis fekk defuma bal bi mu dugg si fekk bal bi dugg si camp yi man duma am jàmm. ok ndam rek. te yàlla dimbali nañu. ba yàlla may ñu ndam loolu kon ñu ngi koy sant yàlla di ko gërëme Serigne Fallou Mbacké. macha allah ñu dem ba quatre suma dix minutes jeex. waaw te la su ma su ma la su su dama lay wax lu garaaw. lu garaaw laa bëgg jóge fii dem ba jam ñaaju dugal benn bal bi. gaa yi di wax man leen nañ leen ñibbi. bi ma dugg bu bal bi duggee dama leen nee ñibbi. la moo tax ma leen nee ñibbi waaw looloo jar a laaj. li tax benn bal bi dugg man leen nañ leen ñibbi. li tax ma wax lool fu match mi mujjee. match mi mujjee. fan laa ko séree si biir kër gi jam ñaajo laa dem dugal bal bi fii laa gañee match bi sama biir kër. kon yow bi ñuy série li ma la wax barki Seydina Mohamed bii bi maa dem ba jam ñaajo dugal bal bi jam ñaajo ba bal bi dugg jam. waaye doo ma bàyyi. man maa jógee ba fii sama benn big bi bi ma duggoon seen diggoon Sénégal maa dem dugal ko mu dugg ba ñëpp xam ne dugg na. mbaalu naari yi yëngatu jam ñaajo camp yi man maa demoon pour inigiré mbaali dem naa inigiré mbaali yëngal caaxu naari te ku ci langoon ma dugalaala ci mbaali. nga naa man deuxième bii bi troisième bii bi na dugg mal leen kër ga rek. ñaata nit ñoo moom am nañ nañ seetaan li may def ku ma ci woo xamaluma ba si ba ba ci pako Paco ndeysaan nee naa ko bu may àgg kër bu àgg kër ngay tas match bi. yaa ngi may dégg. Uh-huh. li ñuy dem prolongation bi yëpp prolongation li gars yi di maa ngi si oto bi. barke allah ji fàllu Mbàkke bi ma yaakaar li ñuy def ba prolongation yëpp maa ngi jóge jam ñaajo nekk si oto bi di ñëw. pour tas match bi. waaye bi la koy gagné def naa fee la ma waroon def def naa ko sarax yi war a génn stade génn naa ko. taalaat sama oto ñëw dugg fi tas match bi ñaata bii la naari rate du dugal. Salah. senegal ma nañ ma ñaan ma génne fi ma duggal Salah. Salah kay da li bu yeboo Sénégal ñu ñaan ma si commentaire nag ñaan leen ma ma génne ma génne fi ma dugal Salah fi woog suba. su ma ko deful dootul gis si match gisu bane. waaw. de. Sénégal nañ ma ñaan suba suba ma dimbali leen mais ma tey suba ma dimbali ko pour après mu mën a gisaat ci football parce que doomu jàmbur la comprendre nga match la sport la ndam moo ñu ñoroon yàlla def na am nañ ndam jeex na kese duñ lor kenn duñ def kenn lu bon. ndax day jooy loolu far force la déggoo li ma man mi jël sama lu ma lu ma collé sama photo laa collé ak photo Salah. estati ko tegal ko son waale bi jam ñaajo laa lay xaar. jam ñaajo laa lay xaar biñ ñëwee jam ñaajo fekk nañ ma jam ñaaw wala fekkuñu ma fa luñ jëlee jam ñaajo. déggoo li ma la jëlee jam ñaajo defet bu rëy. di ko jiiñ laser yi moo taxoon senegal bëgguma woon ñu génn. wax wax naa leen ko bëgguma senegal Sénégal bëgguma woon ñu yóbbu laser bëgguma woon ñu laal lasper parce que li tax bëgguma woon ñu laal laser wala ñu laal lasper maanaam lii laa doon bañ tey ndam li di nga gagné mais dañuy jéem a saltel di ko wéer si ay laser wala ay fitt wala benn affaire déedéet sans laser sans fitt gañ bi far force la ak noo ko gañee baax na. Mm-hmm. ñu ngi la luñ doon séentoo li lay won ni jinne moo garaaw. lu gars yi doon séntu match bi Sénégal day dugal ay 3 Sénégal day dugal ay 2 kan moo séntu benn benn bal bi ma leen wax pourtant moo yóbbu équipe bi série moo gagné match bi waa jeex na mais lenn kese laay ñaan gis nga Sénégal dafa bëri ñoo xam dañoo soxoor gis nga tey Karamba ni muy def ay vidéo ñëpp di ko gis lu mu def yàlla teg si loxo bu barkeel gars yi war ko wane mais ñenn ñi xam la ñu wane kuy duul rek ñoom yooyu lañ sawar comédien yi kuy duul wala benn affaire di a vaar waa vaar yi laa bëgg ñuy wane samay preuve yéen ak may seetaan deen wane sama preuve yi ngir yàlla deen wane sama preuve deen wane preuve yi wane leen preuve yi am na foo xam ne soxor àggu fa mhm. am na foo am ne soxor àggu fa man soo leen ma wonee nit ñi gis nañ ma soo leen ma wonewul nit ñi gis nañ ma samay preuve nit yi di tase si site internet yi laa bëgg samay vidéo di ko tase damaa bëgg sénégalais bi mu gëm boppam soo gisee may yëngal sax boo gisee may yëngal te te li tax ma naan est-ce sama liggéey coupe du monde sax assuré na est-ce que wóor na man dinaa liggéey boo gisee may wax loolu xam nga tax ma koy wax ah. Sénégal xoolal li ma daj ci Sénégal ak li may ñàkk Sénégal yëpp xool xoolal coupe coupe d'Afrique bi li ma daj ci coupe d'Afrique bi ba coupe ñëw Sénégal benn xale kese boo xam ne sax du sax sénégalais moo taxaw rek yuuxu benn yuuxu ñu may ko ci ay millions defal ko ci lépp mu dem ñu ne. Qatar du ma ni Sénégal nañ ma yóbbu Qatar man sama xam-xam bii duma si neexal kenn. xam-xam bii ma yor si neexal kenn émission bii may def defuma ko pour bëgg ku ma oo Qatar bëgguma su ma déggoo ma la wax Sénégal buñ ma owul man damay damay tourné ji. Qatar googu naa fa li Qatar ñaata yoon ma am ay match Qatar man liggéey man waaye doomu bàyyi ñaata match laa gagné Qatar te liggéeyu ma Sénégal ñaata match laa gañel waa Qatar. am na ñoo xam ne tey dinañ dégg li may wax ñaata match laa dóoral waa Qatar naa am ay match Qatar di ko gagné te équipe nationale yóbbu ma Qatar kon basé wu si loolu li ma yor du si neexal kenn te ña ma ko liggéeyal ñoom ay millions lañ ma fay. Mhm. ay millions si table bi ngay bat si yëpp ñaata mat kon basé wu ma Sénégal yóbbu ma Qatar li ma basé wu mooy li may kaas lan la. Coupe d'Afrique benn xale kese moo génn nii la def ŋaang ŋaang nii ngebaat ñu oo ko jox ko ay millions. ana doomu Sénégalais yi. te bu Sénégal jaaxle lan moo tax Sénégal bi mu jaaxlee match bii nii dem demuñu jëli nday papay xale boobu wala yaayam ah. benn yuuxu la yuuxu ñu may ko million millions moo tax match bii passé nii match bii passé Sénégal biñ jommee ñu dóor leen un la moo tax demuñu jëli nday bàyyi xale boobu wala ñu jëli nday yaayam maa ko wax dama koy booleeg saaga nañ bàyyi ni ñuy doxee. yuuxu ñu may la may million may la visa si benn yuuxu léegi imagine ñi ñi taxaw gannaaw yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw di sacrifier seen bopp pour yuuxu boobu mën a am la moo tax lijjanti wuñ leen lan moo tax lijjanti wuñ leen est-ce que benn télé woo na ci ñuy jaay saytaane est-ce que benn télé woo na ci ñuy jaay seytaane yéen ñooñu si télé yi def émission pour duul émission duul man bu ma kenn oo émission duul man émission dëgg laay dox émission léegi léegi laay def soxlawu ma ko li ma soxla mooy deen wane réalité bi yuuxu kese ngeen wane ko ku nekk télé bu ne xëy wane ab yuuxu ŋaang te ngeen gis ñuy dee si hôpital yi wane leen. Sénégal bàyyi leen ni ngeen di doxee baaxul doxalaat leen ni ngeen di def xool leen ni ngeen di soppee ni ngeen di doxee parce que instant bi ni ma gis ñuy doxee baaxul. nañ jàppale doomu réew mi nañ jàppale doomu réew mi tey champion bu mel ni Karamba tey réew mi waroon na ko teg foo xamante ni tey mhm. yeneen réew yi sax dañ lay soxla déggoo ma de Sénégal waroon na la teg foo xamante ni tey yeneen réew yi sax dañ lay soxla mhm. mais sénégalais bi ñenn du ñëpp nag ñenn ñi bëgguñu seen morom. Mhm. te bëgguñu champion. Sénégal bëgguñu champion suñ la xoolee sax xam ne nga doon champion dañ lay jéem a xeex wala ñuy ut kuñ lay kalanteel. man nag dinaa yéex a ut kuñ may kalanteel Sénégal mën nañ xëccoo la ba mu des jàpp ji néeg demo wala bal bi dama koy dugal kenn du ko xëccoo de ku koy xëccoo nañ ko xëccoo. soo ubbee sa bitig mu dox léegi ngay jaay ay slip nga gis kay ubbi bitig di jaay slip nga ubbi bitig jaay casquette mu dox nga gis kay ubbi bitig di jaay casquette mais nga toog di jàpp ji ne jàpp dëm naka dem nit ubbi def ko le messi le Messi loolu laa amoon message yu may jàllale Sénégal waa Sénégal déglu ko loolu laa amoon loo xam dama leen koy jàllale moo nekkoon sama xol wax naa leen ko maa ngi di remercier équipe nationale bi maa ngi remercier équipe nationale bi di remercier ñëpp bàyyiwuma kenn di remercier Aline Cissé di ko wax félicitation xam nga di ñaanal waa Sénégal di ñaan yàlla na jàmm yàlla def jàmm su réew mi yàlla na yàlla gën a yaatal lépp équipe bi nag. ma liggéey ak ma bañ a liggéey loolu si man la concerné mais match bu mu am maa ngi koy ñaanal yàlla may leen ndam lu sedd guy équipe nationale bi match bu am maa ñaanal ma liggéey ak ma bañ a liggéey maa ngi leen ñaanal yàlla na leen yàlla dëkk di may ndam